Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël, la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également de bails ici des commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager gain information, mbokki sénégalais il fait pour les les Quatre régions du Sénégal à wërngal këpp ñi ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci dal hôpital yi ci kër yi te di feebar yal na suñu borom fëgg seen bopp ngay wër ak jàmm ñi nekk ci kaso yi également njuumteef yóbbu leen fa wala boog erreur judiciaire yal na suñu borom génne leen fa dellu leen seen njaboot ñeneen également seen jëf yóbbu leen fa suñu borom gën leen a xiir ci boppam ñi dëddu àdduna suñu borom xar leen fi daw si gaay on avance ensemble dans la magie de eSport TV actualité en continu 11 probable équipe nationale du Sénégal suba contre le Bénin euh, également Hollande bi nga xam dafa atomiser la Belgique la France surpris par le diwaanu Danemark ak aussi ki nga xam moy Boubacar Kamara ci tribune yi gars ci kaw ci coono ca ba nekk ca kaw kaw kaw kaw gars sa yàqale ba le setané match bi gars nak question moy ki kan la gars ki mom nak ku ko xam ma xam ne yow nak kale nga ci football gars ki kan la indice bi mooy gagné na Ligue des champions ren jii ji ji ji kii ngeen gis ni gagné na ren jii Ligue des champions loolu laa mën wax gars kon ki kan la moy question bi mais d'abord hein li nga xam moy match bi war am digënté Congo ak Gabon bo moytuwul tuddu am ndax wa Gabon gars yi dañoo bloqué actuellement sen panne mo amoon sen avion bi len doon yobbu ñu nekk fi mu ne nii ca Espagne ca Barcelone loolu nag fi ne nii tax na waa Gabon ñoom nag def nañ lettre yu yónnee ko waa CAF pour waa CAF euh, annuler match bi mais CAF mënul annuler match bi te bu fekkee ne dëkk bi nga xam ne moom la ñu war a dajal d'accord ci waa jamono ji nag waa Congo ñoom dañoo lànk ba tëdd ci suuf moo tax nag moo waral. boo moytul li nga xam moy matchu Congo Gabon bi dañuy mujjé forfait wa Gabon seen déclaration bi gis ngeen ko mo nekk non seen avion bi na gars bi leen doon doon yóbbu moo am problème technique daal di pass euh, panne sa Espagne loolu nak jur coow malheureusement nak hein ah, donc Gabon mom tay yi leen daal lu baax euh, du du lu sedd quoi ñom depuis Coupe d'Afrique bi dañu am ay problème seen joueurs yu bari bàyyi nañ ñu ngi wax ay problème gestion de l'équipe et tout loolu dal mo fi xew pendant ce temps également ki ngeen di gis ni di euh, Campos hein donc aujourd'hui hein ki ngeen di gis di mooy actuellement c'est officiel hein donc Luis Campos le nouveau patron donc du Paris Saint-Germain gannaaw bien sûr qui a xam mooy Nasser El Khelaïfi dafa officialiser contrat pour trois ans et quand on nañ actuellement là, Luis Campos ki nga xamné mom la Japonais, ne moo peut-être remplacer qui dit euh, Mauricio Pochettino ndax le nañ selon le Parisien Mauricio Pochettino dañuy dañ koy Mauricio Pochettino donc ki nga xamné aujourd'hui, aujourd'hui mom ngeen di gis di l'entraîneur de Nice beaucoup na ci nga xamné ci entraîneur yo xamné peut-être japp nañ né mën nañ Paris Saint-Germain lui l'ancien entraîneur également de Lille nga xamné daw mo xagn Paris Saint-Germain jël championnat bi Herrera nak mom fi né nañ bu matu day delu Bilbao fi nga xamee ne foofu la lépp commencé ci mom ndax fi mu wa Espagne notamment Bilbao dañ ko bëgg rapatrier et c'est officiel maintenant hein. Fabrizio Romano wax na ko nee na di agent ou Gavi mi ngi soog a jot proposition concrète euh, concrète plutôt euh, du euh, FC Barcelone pour la pépite hein du FC Barcelone l'espagnol Gavi bi nga xam actuellement le jeune mi ngi toj Barça mi ngi toj également Espagne ki nga xamné moy donc Paul Pogba Paul Pogba gars ñi ngi do wax ne fi mu ni mi gëna gën Juventus de Turin mais Pogba tamit néna dina tok xol option yi notamment Paris Saint-Germain ak aussi Real de Madrid proposition yi ñu koy defal balaa mo jël décision donc Pogba li wor moy soit mu dem Juventus de Turin soit mu dem Paris Saint-Germain loolu gëna a Romelu Lukaku nag gars ñi ngi insister encore les médias anglais ne Lukaku wax na ne donc mom dafa bëgg a ñi di wa Chelsea dem euh, Inter de Milan wala dem ben club mais nañ ko jox temps de jeu loolu daal le soxla Romelu Lukaku mais bon ba léegi yeyut Diaby ci loolu ki nga xam ne nag Serge il se dirige lentement mais sûrement vers la sortie du côté du Bayern de Munich ndax moom accepté wul prolongation de contrat ñu ngi du côté de Arsenal bi nga xam ko bëgg indi mais aussi hein, le Real de Madrid donc Serge Gnabry qui a plusieurs propositions aussi Il fa la war dem pendant ce temps le Bayern de Munich aussi gannaaw Sadio Mané ñoom fi mu ne nii di Victor Osimhen la ñuy mais waa Napoli ñoom nee nañ fi mu lu proposition toll te egut 100 millions du ñu nangu bàyyi nga le Nigérien Victor Osimhen moo tax fi ni d'Al nii daal euh, ñu bëri ñu ngi leen di tudd du côté du Bayern pour remplacer aussi Robert Lewandowski pendant ce temps qui nga xam ne Rudiger moom tey mi ngi woon ak waa Allemagne ba mu ñëwee nag gars yi nii lañ ko doon defar dañ ko pour féliciter ko ci euh, li nga euh, championnat espagnol bi mu Real de Madrid bi rejoindre donc Anthony Rudiger euh, éliminatoire hein. Coupe d'Afrique 2023 Côte d'Ivoire tey Momodor Zambie 3 buts à 1 avec notamment un but de Serge Aurier qui hein. qui nga également Kidi donc qui euh, dit Ibrahim Sangaré na Zambie aussi ñom am bien du but donc la Côte d'Ivoire avec son nouvel entraîneur ñom tay ñom ñoo di et pendant ce temps aussi Burkina Faso ñoom it ñoom ñoo dóor finalement 2 buts à 0 les étalons hein, donc le euh, Burkina Faso nga xamné ñom ñu xagnona hein. ñom ñu narona a plutôt ñoo ñu naroon a finale bi mais une très grande équipe malheureusement, c'est une malheureusement c'est problème gestion entraîneur yi il donc voilà yak un peu sen sen seen quoi donc mi ngi ni Sadio Mané avec cette image de nos confrères de sport boobu wax ressenti ko sànq l'information aussi en exclusivité 60 à 70 des Sénégalais veulent que je quitte Liverpool je ferai ce qu'ils souhaitent donc lolo la Sadio Mané wax elle ne pas acte na faire fay jóge mais gars yi comme on dit bojo bojo yee c'est baay ñëw na gana euh, gars yi demain cinquième minute bi na Sénégalais yi nekk stade yëpp jóg ngir ñëw wóyandoo euh, hommage euh, tàccu également stade magnifique Flick mais surtout Idriss Gana Gueye le numéro cinq de l'équipe nationale du Sénégal borom Idriss Gana Gueye et non gai, gars yi moom suba nañ ko war a tàcc mais aussi onze probable baa ngi onze probable boo xam c'est presque la même composition peut-être ki nga xam mooy Iliman Ndiaye ñëw nekk ci digg bi pour un peu animer le jeu de l'équipe nationale du Sénégal Aliou c'est peut-être va tester ça wala peut-être aussi mu reconduire même équipe bi avec bien entendu Cheikhou Kouyaté on ne sait pas mais on se gars yi ñu ngi naan kii di Iliman Ndiaye mën donc demain gars yi dem leen stade bi seetaan match bi le Sénégal qui rencontre le Bénin bu ñu faté 5 cinquième minute bi ngeen jug ñu woy Idrissa Gana pour lui rendre équipe nationale du Sénégal rendre fier le peuple sénégal également toutes les religions révélées au xam ne tey gis nañ Idrissa Gana li du sol Mayabo boobu nga xam ne kenn sax mais aussi mauvaise nouvelle pour King nga xam Lukaku dañuy dellu parce que xam aussi li nga Ligue des Nations il dafa commencer Belgique tey gars yi di dafa nërmal nërmal yu métti mais Romelu Lukaku dafa génn sur blessure ah l' attaquant belge malheureusement ah donc un très bon attaquant mais problème physique moo ko sonal tey ki nga xam ne aussi mooy Kylian Mbappé eggalu match bi dafa ressentir quelques douleurs au niveau du genou donc euh, moo tax gars yi dugalaatuñ ko parce que bëgguñu woon jël risque Christopher Nkunku lañ daal di dugal pour mu daal di koy remplacer ñi nga France Danemark le Danemark gars hein qui a surpris la France grâce à Cornelius hein, bi nga xam mon jour ancien joueur Bordeaux mon mot doublé hein. tax tey ñu France deux buts à un donc fa nga fekk mais également il y a eu cette magnifique passe anthologique de ki nga Christopher Nkunku pour un but et donc stratosphérique aussi de Karim Benzegol Benzema de Fodou duuraat Dadi Dougal. c'est véritablement c'est son année hein. réunion année wu ki nga Benzema du côté des Français il a marqué le but donc équipe France bi Tech ah, donc ni à exception prête ni ñooy équipe titulaire est équipe de France di ko ci Benzema mingi fa donc ak Mbappé ak Griezmann milieu terrain Hernandez Kanté Chouamini Koeman Pogba ñëwagul hein Hernandez Varane Koundé ñoo défense ak Hugo Lloris ci cage mais amna na xamné gaay muy Boubacar Camara donc mom ca kaw la sétane match bi gaay yi kaw yo ah comme comme li waxé hein ah, fofu ca mbalit ma est ce que sax duma mbalit ba la sétane match bi hein donc fa la ko sétane tay mom mi nga xamné bon il n'est pas titulaire et que mom dañ ñewon dafa ñew pour remplacer Pogba Pogba ñewul joué wul bokkul ci 23 yi Boubacar Camara même de toute façon il a choisi l'équipe de France dañ ko souhaiter bonne chance parce que aussi luñu mënti wax papam sénégalais la hein? donc gaay équipe le la gars la Hollande avec Memphis Depay, Bergwijn, hein, Klaassen, donc euh, De Jong, Bergus également, Dumfries, hein, Blind, Ake, qui euh, Van Dijk aussi, hein. donc Nyomit, Nyodor donc l'équipe de la Belgique, 4 buts à 0, avec bien entendu le but tant attendu, le doublé de Memphis Depay, actuellement il est à 41 buts en sélection, Mom gars quelques buts mon connaissez pour Moudadi, moy Van, Van Persie, cette équipe gars de la Hollande mom la Sénégal war motax man il est nécessaire Sénégal am ay match amicaux yu baxa a équipe bi ponkal pour xol fuñu tollu parce que gars Hollande mieux du ay kaf du ay kaf du ay en tout cas les gars c'était les informations que je voulais vous donner woy leen di like woy leen di abonné toujours un plaisir de vous servir on avance ensemble gars bojo bojo yee sen bay ñewna waouh, waouh. waaw